li ñu fi waxtaanee nag mooy li jëm ci mbënd mi ren jii nag ñuy séentu nawet bu baax maanaam ndox mu bari kooku boroom xam-xam yi ko wax ñuy ñaan yàlla mu mottali ko ci jàmbak ak salaam nawet boo xam ni dina barkeel nawet boo xam ni dina jariñ askan wi yëpp ndax lii ndox di yàq xëy na mën naa bari waaye la muy defar ëpp fuuf kooku ñun ndox la ñu gën a soxla ren nag ne jàpp nañ ni.

wane nga exactement fan nga jàpp ni mën na am problème kooku lu am solo la ndax information boobu bu ko gouvernement bi amee dina tax ñu gën a mën a organiser liggéey bi gën ko mën a li tubaab yi di wax planifier ko mooy xool nañ koy defee ba jafe-jafe yi bu mënul ñàkkit mu doon jafe-jafe yoo xam ne dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax baax fii ci biir Ndakaaru ak ci yenn région yi moo xam Fatick la moo xam jurbeel la

bu ñu toogaatee bu ci nekk ñu jëm ko saafara. incha li ñu fi tënk yëpp bu ci yàlla àndee àllarba dinañ ko jébbal président la république lu mu ci nangu nag muy doon loo xam ne dogal la boo xam ni gouvernement bi dootu ci amati beneen sañ-sañ loolu def ko ba mu mot sëkk. incha allah xam naa ni aussi li ñu fiy def yitteel na ko lool ndax moom ci boppam moo bëgg lépp loo xam ne dafa jëm ci askan bi ñu topp ko xool ko saytu ko waslu ci àq. ba nga xam ni fa la ñu mën a yem li ci des nag ñu xam ni moom mbiru sunu boroom la ñu ñu ñu nangu ko di ñaan yàlla ñu dajawaat fi ci jàmm ak salaam ñaan yàlla mu may ñu nawetu jàmm may ñaan en tout cas responsable yi nga xam ni am na lu ñu leen sas ñu def ko ci délai bi ñu leen ko waxee ndax it ñu mën a am élément wu information yi nga xam ni sunu kilifa dinañ ko mën a informer ba nga xam ni dara duñu bett ba leen di sant di leen gërëm di rafetlu liggéey bi wasalaam.